sur sur yenn perception yi islamiste yu yu yu yi mhm. euh, am vis-à-vis des chrétiens mais lan nga jàpp ne ay mbir la yoo xam ne ñu ngi koy wax ñu ngi koy jëfee mhm. di ko gàll ci diine mhm. te euh, dañ ci juum comme comme lan mooy comme li ma la dañ naan jullit bu jigéen par exemple ñaata nit ngay gis yoo xamante ni dafa am ku góor ak ku jigéen yu bëggante ku jigéen ki jullit la mais bëgg koo xam ne du jullit ñu taxaw ne mariage bi du am wala ñuy forcer kële pour mu tuub loolu c'est pas normal Euh, diine waxul lool déedéet diine lool moo tax ma ne la. diine lu mu wax loolu laa lay expliqué tey dafa am loo xamante ni diine góor mooy joxe diine. góor mooy joxe diine mais loolu moo tax ñu ne. waa euh, waa léegi nag waa déet du takk mais du loi dama la bëgg wax ne du loi du lu ñu institué. non attends c'est mhm. quoi. Euh, bu bu jigéen du sëy ak kat un homme mais du loi parce góor mooy joxe diine du loi du par force. c'est pas une loi islamique non non moo tax man la ñëpp ay jullit lañ. mooy moo tax yàlla ne fii diini laahi ñëpp ay julli lañ déedéet tey ki nga xamante ni dafa toog bu mu yàgg man ma am sama doom mu nekk julli xëy na chrétien lay doon lan moo tax loolu boo ñëwee ci espace bi da nga koy expliquer loolu laa wax destin bi ñuy wax c'est quoi destin yàlla dafa liggéey ci lumière bi ba teg ko bind ko loolu mu bind noonu day am par force moo xam nga nekk leneen wala loo mënti nekk. day am donc boobu benn la ak ban. Mm-hmm. ak par exemple euh, li ñuy wax maanaam jullit du ñaan la chrétien. par exemple fuñ ko rek teguñu ko fenn sa n'a aucun fondement mais mais mais mais yow tamit li ngay wax euh, ci lan nga ko teg. li may wax parce que ñii dañ ne euh, yàlla bon je suis pas d'accord avec ah je mais ñi am na ñoo xam dañ ne suñu borom moo ko wax. man li ma wax moo ngi nii dama ñëw fii tracer benn tableau. Mhm. gis nga lépp lu yàlla mës a bind. Mhm. ak képp ku mën a am xam-xam ak ku mënti doon génnul lii. lii dama def chemin bi rek ceer bi laa fi def. mais donc le la Mohamed là il englobe tout le monde. parce que tur bi si boppam dafa am ay cercle yu bëri yu ci nekk. cercle bu nekk am na lu muy signifié lii booy man su may firi Coran bi si boppam je trace des schémas parce que alxuraan yëpp c' pour exécuter le destin. loolu mooy alxuraan donc alxuraan ce sont les créatures mooy ñun ñii nii donc lan moo tax ngay xam nit ak temps bi ngay kay xam ba mu yàgg dootoo dootoo la nekk lan moo tax ngay sëy ak nit. lan moo tax yow ngay dem di voyager lan moo tax yow ngay def lii ngay def lii ngay def lii mais loolu yëpp ça s'explique ici. alors toogal à part ça ban ban ban ban mbir tamit la ñuy la ñuy wax euh, te te te amul fondement islamique. jàppee leen ay yéefar boo ñu ne ay yéefar comme li nga ay yéefar boobu noonu pratiquement mooy koo xamante ni gëmul dara alors que ñoom am nañ yonent te ñun dañu gëmloo seen yonent balaa ñuy ñu gëmloo sax suñu yonent mais comme li may wax rek on on cherche en fait à faire un politique du nombre. nekkuñu dans le respect de la foi de chacun ku ci nekk am nga droit gëm li nga gëm yàlla loolu la wax dafa ne ku ci nekk bind naa la toppal li nga xamante ne moom mooy sa yoon moo tax may wax l'expression de la lumière expression de la lumière boobu day ñëwee ci yàlla parce que yàlla moo moom bu ko benn mais nee na benn neexu ko dafa bëgg lu wute pour wane mën-mënam loolu moo tax muy wax alif lam mim soo ubbee Coran bi ngay xool alif lam mim dañ lay wax yàlla moo xam mais alif lam mim am na signification te foofu yàlla day wane ne moom am na lu mu mën loo xamante ne lépp lu mu sàkk mënoo lool mooy pluralité bi ni